fukki simili ak juróom toftal ci juróom benn waxtu ci ngoon dal leen jàmm ak seen xibaar yi li ci gën a fës gannaaw ba ñu ko tegee ci bopp ki kuréel gi nga xam ne moo ëmb lépp luy chauffeur ak transporteur fii ci diwaanu Sénégal kii di Dame Lo moom nag mi ngi xamle ne dana def ay jéego ngir waxtaan am ak diggante nguur gi ak transporteur yeeg chauffeur si ci fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2011 nag am na beneen mbootaay gu taxaw ànd suqali ànd jëmmal eh, dañu koy tëppee kiko jité moy mam jaar jong mom nak li mu nar rek moy fexé ba Kaolack jotat ak bopam té mel namu melon euh, meloon xët gu metti té tar mo dox ci moy des di wëy rek ci digënté euh, ki di jiite bopp bokk momel bu ndiafat Aïssatou Ndiaye ak askanu wa nek ci Koutal Séeréer ñom nak li ñu koy topp mooy seen ñim nar a teg loxo ngir séddale ko ci anam bu ñu àndul euh, euh, te xibaaru bitim réew euh, mooy nekk seen ñaari xaaju xibaar yi ak tàggat yaram mooy ndar képp jotaay bi suñ tuut ñëw ci farañ fàcc gi. kuréel gi ëmb chauffeur si ak transporteur yi ci diwaanu Sénégal am nañ njiit lu bees kooku nag euh, mi ngi yeew fi diwaanu Kaolack di daamloo jiite garage Liberté ñu gën ko xam si garage yu Dakar moom nag ñu ngi ko tabbu ci samedi bi ñu wees euh, fële ca diwaanu cees gannaaw ab assemblée générale bu ñu fa doon amee moom nag euh, gannaaw ba mu fa jógee ñoo nag daje ak ño ay ak ñoñam fii ci diwaanu Kaolack moom la xam le na ne jot na ñu dekkalaat bépp waxtaan bu dox ci war dox ci diggante nguuru Sénégal ak chauffeur ak transporteur yi adduwaat ak moom euh, ci grève bi nga xam ne ci ay kàddoom la ñu ko yëkkati woon daamloo euh, la ñuy teewlu ci micro Babacar Mbaye uh-huh. woo defoon fa ndaje mm-hmm. pour président national bi mm-hmm. des chauffeurs et transporteurs du Sénégal ah. yàlla dimbale ñu ci uh-huh. ñu dem par am benn nit boo xam ne moo moo moo demoon moo candidat la man uh-huh. ñu dem ba ci biir waxtaan yàlla dimbale ñu jubóo moom mu retiré falma président national chauffeur et transporteur du Sénégal waaw waxtaan ak chauffeur yi sensibiliser pour mbir mi jëm kanam fexe waxtaan ak autorité yi transport jëm kanam parce que transport li mu tardé dafa bëri am na anomalie yu bëri yoo xam ne war nañ cee waxtaan ak état bi état bi jàppale ñu pour transport bi gën a jëm kanam waaw loolu fas yéene naa ko def fas yéene naa waxtaan ak chauffeur si sensibiliser leen waxtaan ak état bi pour ñu gën suñu liggéey mu gën a jëm kat bëri na jàppale ñu ci transport bi nga xam ne doxatul jàppale ñu ci sanction yi nga xam ne baaxul ci ñun jàppale ñu ci wargay ne yi nga xam ne nangu nañ transport bi jàppale ñu ci xam ne renouvellement oto yi nga xam ne parc automobile bi ñoom yeneen oto yu bees loolu ñu ngi ci danañ ci seet ay partenaire danañ ci seet état waaw dama dox syndicats yi syndicats yi ñooy chauffeur loolu moom sensibilisation la mm-hmm. waxtaan ñoom mm-hmm. bu laajee tournée nationale sax ñu def ko mm-hmm. man ak sama vice président am na bureau bi day complété dañ ko fal si Kaolack. Mhm. xamaguñ ban jour la. Mhm. mais danañ waxtaan pour fal si bureau bi Kaolack. Mhm. fi mu nekk nekk président bi moo mooy man. ak vice président Pape Diop bu Thiès. moom nag mi ngi doon ci kàddu yi gannaaw ba ñu ko tegee rek ci ci bopp euh, kuréel googu di regroupement national des chauffeurs ak transporteurs bu Sénégal doon am sa assemblée générale fee ci diwaanu euh, Thiès ñu wax ci xëyu ndaw ñi kii entreprise bi di euh, bureau à grande vitesse bi nekk fii ci diwaanu Kaolack ak yenn ci ay gox biir Sénégal nag doon amal ab ndaje fii ci diwaanu Kaolack jaaroo ko ci ab conférence nag ngir tàggat ndaw ñi te ñaax leen bureau boobu nag la ko tax a jëkk mooy tàggat ndaw ñi te utal leen ay xëy waaye loolu nag ñu ngi koy jëmal gannaaw ba ñu gunge état wu Sénégal ci li nga xam ne mooy euh, sàkk sàkk ay xëy jëmale ko ci ndaw ñi fexe ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp euh, dañ ciy déglu que leen jiite rek muy amalu Tete Ba ci micro Babacar Mbaye parce que dama am dama yëg mbekk bu rëy ndaxte ma gis ñoo xam ni bi leen di former lu ndaw la ñu woon am woon yaakaar ñooñu dem tey ba tekki nañu ba tey ñooñu di former war yeneen ndaw pour jox leen même chance boobu noonu loolu fierté la ci man gis ñoo xam ne da leen former ba ñu réussir waaw xam nga ñun xeetu liggéey bi man créé wu ma ko inventé wu ma ko dama ko dama ci dama ci parce que ay canadiens ñoo fi àndoon à l'époque c'était les années 98 en 1998 mais man 2099 laa ci dugg ba ma ci duggee nag dafa un an rek commencé yore sama structure bopp ñu formé woon nag man tamit ma daal dem di formé yeneen ndaw ba loolu la ci dem ba yaatal ko ba créé réseau bu mag tey jëlee loolu nag mbégte la waaw Sénégal Euh, ñun suñu rôle mooy xool lu ñu mën a dimbale suñu état ci xeex bu ñu xeex ci wàllu xëyum ndaw ji loolu réew bu nekk dafa am problème boobu noonu ñun nag BGVTA bi dañu jóg nag pour apporter suñu pierre à l'édifice pour xeex googu noonu ñu mën am lu ci andi yaakaar naa ndaw ñu bëri tey jëlee am nañ yaakaar pour am ci lu ñu jàpp ba am tey lu ñu yóbbu seen kër yi loolu sant yàlla la. waaw ñun moom suñu fort suñu liggéey secret bi ci ëpp nag mooy fexe ba tàggat ndaw ñu ci wàllu jikko ju baax jikko ju rafet. dañu tëdd avoir une bonne attitude et savoir les garder loolu mooy suñu credo loolu dañ ciy xeex ba xale yoo xam te ne tey amuñu jikko yu baax sax tey yàlla sutal nañu tey parce que jikko yu baax nañu ndax ñun dañuy njëkk a def d'abord mooy tàggat la ci ay jikko ay valeur pour que nga mën a nekk kilifa ñun formé wuñu koo xam ne wër di jaay dañuy formé ndaw boo xam te ëllëg dafay nekk kilifa yore moom it réseau boppam di doxal mais da ngay tàmbali ci A jëm ci B jëm Z waaw ñun moom ñu ngi lu ñu warloo ak impôt ñu koy def suñu suñu ci suñu côté. seen ndaw ñu nag dañuy tàggat fexe ba du ñu nekk ci naka sudul noonu waaye nag ñu mën a ñu mën a seen bopp te am ay xëy mën nañ ci sax wëy ba def uh, seen kuréelu bopp kenn si ñoom di aadama uh, Awa Diallo moom bokk na si xam ne tàggatu na ci ba jamono ji am na taxawaay bu mu ci am dañ koy teelu ba léegi si micro Babacar Mbaye waa mbégte ak contentement jàkkaarloo ñi nga xamante ne suñuy responsable ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu ci cadre liggéey bi ñëw di ñu jàngal li nga xamante ne wala di ñu fàttali li nga xamante fa leen jaar ba yegg si fii mu nekk mbégte ak contentement trop teewee li nga xamante ne moom mooy deuxième saison bi aussi. bon formation kii euh, euh, waaw formation la ñuy def ko ni ñu ko waxee c'était élève mais nag formation bi daf lay jàngal lu bëri. man mo wax deug yaa dëgg fa neex yalla gis na ci li nga xamantene mom moy avancement c'est parce qu'à l'époque mel mo woon ni mo moom sax jàkkaarloo ci mbolo di wax ak ñom mais formation bi ñi def changé na lu bëri ci ñun ci walum complexe comportement attitude à la manière bi nga xamantene dang koy mëna nek ak jaamu yalla aussi mu doon lo xamantene changement bu rafet la aussi jëmale ko ci ñun quand même waaw change amna changement comme ni ñu ko waxee rek ndax man suma démé suñu kër sax dañ naan ma ah ni nga meloon ak léegi dafa changé bu njëkk ba daawuma ma teel a jug xalaatuma ko sax même bu nekkee école la sa damay tardé école mu ah, lii ni professeur yi mosu ñoo fekk ma li nga xamante mooy classe mais dañu jàngal li nga xamante moom mooy la ponctualité gëm-gëm aussi te aussi dina baax patience yi lépp lu ñu lay jàngal aussi da nga koy gis dañ lay jàngal li ñu lay won aussi moom ngay gis li ñu lay wax aussi moom ngay gis lépp jàng boo xamante ne dañ lay jox diplôme bàyyi la nga demee noonu mais dañ lay former ba pare jox la li nga xamante moom mooy emploi te li ma gën a neex ci formation bi mais on cherche pas la compétence soxluñ koo xamante ne da nga fay xarañ pour door a yegg si fii mais dañuy def xarañte ci yow te boo gisee may taxaw di wax wala comportement yu bëri même colin bi ah tey ci BSVTA bi laa ko jëlee kon gàcce ngaa laa ma ci ñoom. waa problème sur le terrain moom bëri na trop. surtout ngay jigéen d'abord moo tax ñuy jàngal li nga xamante ne mooy tenue propre et correcte d'abord da war a correcte yow ko jigéen ki sinon boo demee sol ay habillement yoo xamante ne sa dënn bi dana ci biti wala nga mu nekk ay wala mu nekk fente dañuy accentuer wu ci loolu pour mun la sànni ay négatif dañ naa la sa pooj baax na sa dënn baax na mais tey loolu dañu ko éviter ñu sol ay chemise di takk di brailler ba mu naaj sol super sang ceinture ak dal di ñu jàngal la manière dont bi nga xamante ne war a habillé aussi pour dem li nga xamante ne moom mooy ci terrain bi quand même dañ ciy gis ay négatif yoo xamante ne yu bëri pour ñi nga xamante ne accenté ci loolu mais depuis ñu concentré wu ci yére yi nga xamante ne correct la et propre pour nga dégg ko wax li nga xamante ne mooy ci sa habillement loolu day jeefe quand même ànd jëmmal Saloum di kuréel gu yees gu juddu ci fukki fan ak benn ci weeru mars bi ñu ne euh, moom nag la ko tax a mooy delloo Kaolack la mu yoroon ak la mu moom ka ko jëmmal nag mooy maam Diarra jong moom nag la mu ci jublu rek mooy fexe ba Kaolack dellu fa mu nekkoon te ñu jox ko gëddam ci lépp luy jógee ci état wu Sénégal ak euh, li mu moom euh, loolu nag dañ ciy teewlu reportage yu Penda Diallo samedi bi wessu ya, mouvement and jëmmal Saloum ñu doon amal ab lancement jëm ci yenn ci seen ay programme seen bëgg-bëgg rek moo di développer salum laal nak yenn ci ay banqaas yoo xamante ni mën nañ cee sukkandiku. ndax nak ki leen woo du kenn ku dul mouvement AJS muy ab kuréel bo nga xamante ne ni Kaolack la juddoo judd ci loxo ay doomi Kaolack département de Kaolack bi ñoo ko téye ci seen loxo. Tay dañuy wo képp ko nga xamantene ni doomu Kaolack nga muy jigen muy goor nga ñew and ak ñun ñu boole suñu doole taxaw ci li nga xamantene ni moy ñongal suñu nekkin ci bi loolu sax xamna nañ du nga ñi may leen li nga xamantene modi formation ba nopi nak financé leen seen bëgg-bëgg rek moo du ñu demal seen bopp. ba tax na ñi yag nañu ci nek ndax man mam jaara amal naa fi ak ay soxna ay formation yoo nga xamante ne nii jot nañ ko fee def ci ay jigéen yu nekk ci yenn communes yi yàgg nañ cee nekk di ci nab nabi dañ ciy continuer di leen jàppale ñu fexe am ay këyit këyit yi leen di permettre financement yi nga xamante ne nii mooy ndimbal ci xaalis nga xamante ne nii ministère bi da koo ameel jigéen ñi di leen ko jàppale pour ñu mën a def seen yëfi bopp amal dara seen bopp ñépp bokk ci yam ngeen man cee jote mbéy mi artisanal wala sax tàggat yaram bokk na yi nga xamante ni na mën nañu koo développé ñu sukkandikoo ba tey ci ki jiite mouvement boobee seen bëgg-bëgg rek moo di ci bëgg-bëggu askan wi. ñu ñëw ci ñi nga xamante ne nii mooy le secteur artisanal les artisans wax naa ko léegi tey li ne ci salle bi yépp bureau ak bind mënu ko métier yi rek moo ko mën métier yooyu ñu mën cee lim. ñiy def yi mën cee lim ñi nga xamante ne nii dañuy defar dàll yi muy wuude yi mën cee lim tailleur yi mën cee lim tëgg yi mën cee lim mécanicien yi mën cee lim ñiy defar ndaa yi ñoom ñépp ci métier artisanat ci lañu ñu bokk ñooñu tam tey am na ndimbal loo nga xamante ne nii war nañ ko am yayoo nañu ko ndax nag tey économie bi li ci ëpp artisanat moo ko ŋànk suñu frères yi suñu papa yi ñi ci ëpp ci loolu la ñuy yëngu artisanat boobu tey war nañoo xalaat ñi nga xamante ne ni dañoo yore entreprise yi ñu jéem di leen dooleel di gën a actualiser maanaam seen ay xam-xam mu méngoog li jamono laaj ginnaaw ay doom association bi nag ab bëgg-bëggam rekk ci askan wu Saalum daal la ko teg tax sax mu ne daal dina fexe xool nes mën a def ba baax baax yi nga xam ne département bi am na ko rek ñu daal di koy jëfandikoo. ñoo tëddi fële ci diwaanu Koutal ci gën caa leer ci Koutal séeréer xët-xët ba ngay wéy ba léegi di fa des nag te dox ci diggante maire bi nga xam ne mooy maire Ndiafat ay Aïssatou Ndiaye ak askan wa dëkk ci diwaanu Koutal séeréer ñoom nag li tumal mer bi rek euh, wala bar li koy moy euh, dafa amna sen témer hectare ak fanweeri djuroom yi mu nara nangu euh, ci ay wax yu dul deug ak ay ay ay sos ngir ngir dag dagate ko jox ko yenen askan yu bokul ci diwan ba ñom nak nam bañu ñuko way nak nam koy defé mo lañ ci neexul dañ ci tewlu yi mi yoron sen cadeau dara ñun jigéenu kuta Séeréer gisuma lenn nyu mer defal gisuma ko man lu moy diñu jaay doole ñun amuñu lu mooy suuf si yaakaaruñu lu ñuy suuf si suñu doom yi amuñ lu mooy suuf si nañu bàyyil suñu suuf bum ñu jaay doole ci suñu suuf suufu jàmbur këru jàmbur sax boo cay dugg la ngay wax borom kër gi mën caa am jàmm dëkk jàmbur noonu kon suufu jàmbur mënoo koo utiliser te waxoo ki borom Macky Sall na wax ak ndawam Macky Sall lañ wax ñun ay citoyen lañ ñu ngi dëkk Kouta séeréer dañuy dund comme nit ñi di fay impôt comme nit di def li ñëpp di def ko ñun bu ñu amee naqar di ko jooytu Macky Sall na ci jot na ci wax Astou Ndiaye li mu bëgg duñ ko def tey duñ ko def suba ñu ngi koy moccu muy monte li mu bëgg nag mooy guerre te bu teggu tànk dina am ñi mu jaay suñu suuf kenn ci du ci tabax ñun dañuy béy dañuy béy suñu suuf suñ suuf ki ñim ko jaay te dëkkuñu Kouta séeréer buñ yeboo xam ne sànni nañ seen alal bu dee am na suuf si ñoo ko moom na ñëw na na astu ñëw wax ñun ba déggoog ñun def li ñu bëgg ñu dem waaye dundam bi mu def ko ku ma amul ndey ku ma am ndey boo waxee mu yootu la làq la euh, prison ñaari fan mu bàyyi la pour lan loo xamante ne amul benn suivi a ah? ba njëkkee ñaxtu jël na fi ay nit làq ay ñaari fan weeru kooru daaw ñaari fan ñu ngi ko am gendarmerie mu téye suñuy gune ñu ne deetewaay mu bàyyi ren suñ chef de village day jël pour lan chef de village ku buddi borne moom dafay teg gardien borne dafay teg kuy garder borne chef de village ku buddi borne mu ne xaw ma mu jóge ca loola di wax ay waxu nax sa kandam ñu ne deetewaay mag mu toll ni chef de village mu jël làq ko di jàpp ay 4 jours par pour lan Astou Ndiaye moom moom mooy kan moom nañu dimbale nañu bàyyi te fi nii nag guerre la bëgg buñ geerut tak moom dinañ geer ak ñii mu jox suuf si dañ koy geer suufu maama ma nga njaafat da koo tiire làq ko kenn du ko laal kon suufu Kouthia Séréer na ko bàyyi waa Kouthia Séréer pour muy leer su buggee jaamu ñaar du jëm ci wàllum politique xam ne ñu ngi wàccal élection njiitu réew mi ñu jàpp ko ñaar fukki fan juróom ci weeru février ci atum 2024 nag ci yoon boobu nag parti politique yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum politique ñi ngi jóg di nemmeeku seen i askan di waxtaan ak ñoom ngir rek euh, saafante ak ñoom euh, ngir téye téye leen ba waxtu woowu jot nag loolu lu ni mel am na fële ci diwaanu Ndofane ak ki nga xam ne mu ngi bokk ci APR dafa kilifa nekk Cheikh Ndiaye bu Ndofane moom nag mi ngi doon amal ak doxu nemmeeku ci diwaanu Ndofane dañu koy déglu ci micro Thierno Diallo. département bi tey dafa toll foo xam ne jóg dafa jot jóg dafa jot lu ko waral mooy li ko waral mooy tey dañuy sonn pour réew mi dañuy sonn pour parti bi dañuy sonn pour coalition bi waaye dañuy xaar également coalition bi ak parti bi gëstuñu. lolo waral rassemblement yi tay nak peut-être Kër sosé la suba fenen lay nek ci département bi ak fenen ak fenen bo ñu dajal 14 communes yi nga xamné ñom ñoom ñoo constitué le département de Kaolack fepp ko xamné ku yaakar Cheikh ndjay ku gëm Cheikh ndjay ku bëgg and ak Cheikh ndjay mo nga fa sol sama dal dem séti la kek ko nga xamné andon nga ak président Macky Sall mu am lo xamné daf la nakari bo nga tié sa tank dematoo ñëwatoo Cheikh Ndiaye dana sol dàllam dem fekki la incha allahu rabbi kon nag jàpp leen ne ñaar ñooyu moo ñu yëkkati li nga xam ne moom moo fi nekkoon dafiy nekkaat frustration am na découragement am na tayal am na loolu laa bëgg mu dàkk ñu dellu fa ñu dellu woon ba li nga xam ne moo nekkoon département Kaolack nga xam ne ku ñu faral nga gañe ñu continuer tay di far di gagner bo paré nak li ñu wal li nga xamné mom lañ yello ñu jox ñuko lolu moy mooy wax euh, kes affaire bi nekul dootuñ nangu kenn jóge Kaolack ñëw di ñu diriger dedet suñu diriger daf ñoo neex su fekke ku ñew ci kër fekk fa borom kër gu mat sekk so ñewé da ngay doon surga mais do doon ge kon nak buñu nangoti doon surga ci suñu biir kër wax ji yëpp yaakaar naa ne loolu la bañ a nekk surga ci suñ biir kër te doon surga ci suñ biir kër foog naa ne wax ji loolu la xaaju xibaar yi dañu koy door ak xibaaru bitim réew ci ak Ibrahima Diop xibaaru biti réew yi dañu koy door rek réewum Tchad premier ministre bu Tchad Albert Padaké daal di nay bind ab livre duppee ko Afrique empoisonnée aux éditions de Marathon bu ñu fàttalikoo moom mii de di Albert Padaké ñu ngi ko faloon premier ministre bu Tchad ginnaaw génn àdduna président Idriss Déby ca mois de avril atum 2021 moom di Albert Padaké dal di nay quitté boobule poste ginnaw juróomi wér yu mu fa def. ci diwanu Mozambique guddik samedi japp dimanche bi ñu weesu ab cyclone lañu fa nemmeeku wat bi la yon nak jëye yi gëna na wàññeeku ndax benn doomu aadama rek mo fa ñàkk bakkanam uteek ba fa amone ci wéru février bi ñu nga fukki doomu ñakoon nañ ci sen bakan li nu mel taxna ba ONG yi nekk ci dëkk ba tit lool xibaaru biti réew yi dañu koy jeexaleek mu gabon njaboot gu bari ñoo dajalo woon di amal ay ñaan ca port autonome bu gabon nga xamante ne benn bato moo daal di suuxu ba téeméer ak juróom benn fukk nit ak benn daal di ci ñàkk seen bakkan ci boobu la lim tamit ñu ngi ñuy xamal ni ña daan dawal bat bi tamit ñàkk nañu ca seen bakkan mu ngook liile bokk na ci li gën a fës ci xibaaru biti réew yi jërëjëf jox la ngay ci wàllum tàggat yaram ki dembu ci dimanche gi lañu daldi amala amal lamb ji doon boole ma ñoon ak ki di Bébé salum lu ñu mel ta xewé ci stade bu Lamine Gueye lolé lamb tax ne kon lo xamni askan wi ñepp daldi nañu téwi lu ñu mel sax waral ki di bay ma ñoon daldi and ak rëg-rëg mër mu mag momé moko andi won teewut Bébé salum doomu kawlak bi daldi di ko daan jànjang bu mu tëdd ci suufa lu ñu mel sax mu melni waxon nako ko ci bi ñu nekké ci open press bi suñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamni ki di Bébé salum yëkëti won nako japp na ni bok bay ma Ndione fii ak Dakar arrêt bu ñu yegg mu daal di ko daan wane na ko démb ci jàkkaarloo bi mu doon am ak baay ma Mandione wàllum football la ñuy daal di dem ak euh, trophée bi nga xam ni euh, équipe bu Sénégal ji xale yi nga xam ni seen at matagul vingt ans daal di nañu ko jël ni ki di jële weesu sax la ñu door équipe bu Gambie ñaari bal ci dara loolee sax nekk loo xam ni benn performance la buy dolleeku ci li nga xam ni coupe yi jël nañ ko bi ñu euh, duggee ci at bi ak léegi ñu jàpp sax ci parcours bi nga xam ni joueurs yi def nañ ko ci bile kan am na solo lool lu waral lu ni mel mooy marqué nañ lu toll ci fukki bi ak ñeent ba tey sax amuloo benn bi boo xam ne encaissé nañ ko ci Il est tournoi ñu wax nag ci lu jëm ci wàllum art martial foofee ca dojo bu Dakar sax la ñuy daal di yeggandi loole ngir mën a waxtaanee ligue bu Dakar coupe bi nga xam ne des nañu ko daal di amal tuddee ko président bu ligue bu Dakar Idrissa Diop DMD daal dina imposé wu ci cadet yi Mazelo daal di imposé wu ci ñi di junior yi première édition bi nga xam ne mooy coupe président ligue bu Dakar ca dojo national lañ koy daal ci dojo national lañ ko daal di amalee ci njaxtal ba sax gis nañ cadet yi dojo Momar Dieng moom moomee sax daal di nañ ko xàmmaliku bu baax a baax MSD moom it daal di na ci ràññeeku bu baax a baax ci jamono joojee sax day Diop bu judo club Amagelo daal di na dicté luwaawam bu baax a baax jëmale ko ci catégorie junior bi. xibaaru tàggat yaram bi dañ koy daal di jeexalee wàllum boxe loolee sax nekkoon championnat d' Afrique zone 2 bi doon am fii ci diwaanu Sénégal équipe bu Sénégal jëlee ci lu toll ci juróom benn médaille or benn médaille argent ak ñeenti médaille bronze boobule finaal sax doon xewee foofee ca centre bu Diamniadio foofee la ñu amalee bile championnat bu boxe Sénégal ràññeeku ci bu baax a baax a baax door équipe bu Cap Vert naka noonu it équipe bu Guinée bu ci Cap sax li ñoo jàpp ni bokk na ci jàkkaarloo gi nga xam ne mujj nañu ko Mohamed Tafsir daal di daan si faw na George moom moomee sax mu tëj ci biir Assane Thiam moom sax moom ngeen ànd ak fii ay simili ci seen euh, xibaaru euh, nasaraan si nag euh, xibaaru tey xibaaru wolof yi moom nag fii lañ koy ndar képpe maamoon mbégte di leen ko am ànd ci ak Pape Maïssa Diop ci réalisation bi am satu Tambédou ak kii bay Baye Mor am ànd ak tàkko ci wàllu régie bi ñu leen di jaajëfal ci teelu bi ngeen ñuy teewlu di leen jox dox daje ba ëllëg incha allah jërëjëf.